yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fukkeelu njàngale mi ak ñett yàlla natt na ngëmu Ibrahima nanu bamtu nettali bi weesu benn naka la nit ñi doone bàkkaarkat aadama dafa dégg dil yàlla te loolu bàkkaar la kon doomi aadama yépp bàkkaarkat lañu ba ñu juddoo ñaar lu tax nit ñi teqalikoo ak yàlla bàkkaar moo teqali nit ñi ak yàlla ñett kan moo dogal Ibrahima am doom ak ajara Saara ak Ibrahima ñoo ko dogal du woon yàlla ñeent ndax Ibrahima bàkkaar na bi mu séyee ak ajara waaw ndaxte du woon coobare yàlla juróom lu tax yàlla atte waa sodom ak gomor ndaxte dañu bàkkaar juróom benn kan la yàlla di atte yàlla dina àtte ñépp ñi bokkul ci moom mbind mu sell mi nee na ci njalben gi saar ñaar fukk ak ñaar aaya juróom-ñeent ba aaya fukk ak ñeent ba ñu eggee fa ko yàlla wax ibrahima dajale ay doj ngir rendukaayu sarax mu teg ca matt ma daldi yeew isaaxa doomam teg ko ci kaw matt ma ca rendikaay ba ibrahima tàllal loxoom daldi jël paaka ba ngir rendi doomam waaye malaakam aji sax ji tollu ci asamaan woo ko ne ko ibrahima ibrahima mu tontu ko maa ngi malaaka ne ko bul jëmale sa loxo ci waxambaane wi bu ko def dara ndaxte léegi xam naa ne ragal nga yàlla ci li nga ma gàntuwul sa jenn doom ji nga am ba mu ko déggee ibrahima gestu gis ci gannaawam kuyum xar mu béjjën ya lonk ci as ngarab ibrahima dem daldi jël kuy ma joxe ko mu wuutu doomam nekk sarax suñuy lakk noonu ibrahima tuddee bërëb boobu yawe yére moo tax ñuy wax ba tey ci tund aji sax ji dina ko indi bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi natna na ngëmu Ibrahima nettali bi mu ngi aju ci bi yàlla nattee ngëmu Ibrahima bi Ibrahima amee téeméeri at te Saara toll woon ci juróom-ñeenti fukki at amuñu woon doom ba tey ndax yàlla dafa fàtte li mu dige woon déedéet yàlla def na li mu dige ndaxte Saara ëmb na donte màggat la. yàlla mën a def lépp te yàlla def na saara ëmb donte màggat la saara am doom ju góor ñu tuddee ko isaaxa te muy tekki reetaan ndaxte saara reena bi mu déggee ne dina am doom ju góor donte màggat la ay at jàll saara wax ibrahima mu dax ajara ak doomam ndax ñu bañ a bokk ci ndono li loolu merloo ibrahima waaye yàlla wax ko mu def li saara bëgg yàlla wax na ne dina def askanu doomu jaam bi wu yaa ndaxte doomu ibrahima la ca ëllëg sa ibrahima jox ajara ak ismail dund ak ndox dàq leen bi ñu demee ba ndox mi jeex ajara toog tàmbalee jooy waaye yàlla yónni am malaka ngir fàttali ko ne diga woon na ne dina def askanu ismail xeet wu yaa noonu mu gis ab teen ñu naan yàlla barkeel Ismaïl ismayil màgg ci biir àll bi gannaaw gi mu jël jabar ab janq misra ay at jàll léegi Isaaxa am ñaar fukki at te Ibrahima bëgg ko lool yàlla fas yéene nat ngëmu Ibrahima noonu mu wax Ibrahima mu jël jenn doomam ji mu bëgg lool te dem ci réewu Morisa sarax ko fa yàlla ci ab tund ca ëllëg sa Ibrahima dajale li mu soxla lépp ngir sarax si mu ànd ak Isaaxa ñu dem bi ñu doxee ñetti fan Ibrahima wax dag yi ñu xaar leen moom ak Isaaxa ñu dem màggal yàlla te dellu si. Isaaxa yenu matt mi Ibrahima yor paaka bi ak safara si Isaaxa laaj baayam ana mala mi ñuy saraxe Ibrahima tontu ko yàlla dina ko indi bi ñu agsee ci bërëb bi yàlla waxoon Ibrahima Ibrahima daal defar ab rendikaay Ibrahima yeew Isaaxa teg ko ci kaw rendikaay ba mu yëkkati paaka bi ngir rey ko noonu yàlla wax Ibrahima ne bu mu rey Isaaxa yàlla woon Ibrahima menn kuuy mu béjjën ya lonku ca genn garab gu ndaw yàlla wax Ibrahima mu saraxe kuuy mi ngir mu wut Isaaxa yàlla joxe na kuuy ngir mu wut Isaaxa noonu Ibrahima ak Isaaxa saraxe kuy mi daal di màggal yàlla Ibrahima gëmoon na yàlla lool Ibrahima gëmoon na ne su saraxee Isaaxa yàlla dina ko dekkal ndax li yàlla dige gannaaw bi Ibrahima saraxee kuy mi ñu dellu fi leen dag yi doon xaar gannaaw ab diir saara jabaru Ibrahima daal di génn àddina Ibrahima dem ba nekk mag mu bëgg isaaxa jël jabar noonu ibrahima wutal ko jabar ku ñuy wax rebeka isaaxa amoon na ñeent fukki at bi muy jël rebeka gannaaw gi ibrahima génn àddina yàlla wax isaaxa ne lépp li mu digoon ibrahima léegi dig na ko ko ci askanu isaaxa la ki ñu digee ne dina daan seytaane di wàcce fii la nettali bi yem am na ay laaj benn lu tax juddu Isaaxa am solo ndaxte yàlla def na li mu digoon Ibrahima ñaar lu tax Saara wax Ibrahima mu dàq Ajara ak doomam ndaxte saara bëggul woon ismayil doomu ajara bokk ci ndono li ñett lan la malaaka mi fàttali ajara bi muy jooy fàttali na ko ne yàlla digg ne askanu ismayil dina doon askan wu ñent ñeent lu sant ibrahima mu saraxe isaaxa jenn doom ji mu am ak saara yàlla bëggoona na nat ngëmu ibrahima juróom ndax ibrahima laaj na yàlla dara ak lu tax laaju ko ko Ibrahima laajul yàlla dara ndaxte gëmoon na yàlla. juróom lan la yàlla dig Ibrahima. Ibrahima dina doon baayu askan wu yaa. ndax Ibrahima xamoon na naka la yàlla di matale li mu ko dig. déedéet juróom-ñett lu tax yàlla jox am kuy Ibrahima ngir mu saraxa ko mu wuutu Isaaxa. ndaxte yàlla bëgg na Ibrahima ak Isaaxa ndaxte ci Isaaxa la yàlla di jaarale li mu digoon Ibrahima. juróom-ñeent kan la yàlla digga woon ne mooy wàcce ci Ibrahima ak isaaka mooy ki yàlla dig Adama ak Awa muy musalkat bi kii daan seetaane ngir fasaat kolore ci diggante yàlla ak nit ñi yan melokaani yàlla lañu gis ci nettali bi te naka lañu ci feeñe yàlla mooy boroom doole yàlla def na saara ëmb donte màggat la yàlla lu mu diggee def ko yàlla jox na ibrahima ak saara doom ju góor ngir ñu am aw askan gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla may na ibrahima am kuuy mu wuutu isaaka yàlla yónni na am malaaka ngir mu giifal xolu ajara malaaka mi wax kone ne yàlla dégg na ay jooyam te dina sàkk aw xeet wu mag wuy jóge ci moom ajara beneen yoon dinañu waxtaan ci ni yàlla barkele isaaka ak yanqooba